waaw sëñ Bassirou ñu ngi teew fii ni ko président Laye Serigne Lo introduire rek euh, ñëw fii kon teewal euh, Mouride Islamique Community in America mu nekk mbooloom Serigne Touba bu mag moom nga xam ne Cheikh Modou Mourtada euh, mu nekk mbooloomu mag. moo xam ne jàpp nañ ne organisation yi nekk ci bitim réew organisation murid yi moo ci gën a rëy euh, moo ci ëpp représentativité moo ci ëpp passé historique ci ëpp taxawaay tamit ci lu xam euh, yàlla boole ñu ci lu yàgg nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada moo la indi woon foofu def la ngay imam ratib bi ginnaaw bi ndax moo leen yëpp jàmm ak kóllëre bu rafet euh, ba yàlla dogal euh, foofu jeex yàlla indiwaat la nga ci réew bi euh, bi nga xamee nag ne yëg nañ ne ñu ngi war ubbi Masaalikul Jinaan mu nekk tamit œuvre historique bu nga xam ne ndam mënu ko féete kaw sëriñ suñu borom defal ko Sëriñ Tuubaa ci réew mi nga xam ne mooy réewu cosaanam defal ko ko ngir lislaam nga xam ne Sëriñ Tuubaa dara yëpp ci loolu ko jeexal